jërë ngeen jëf internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte di leen ziar ngeen ba tey ñu ngi ci suñu freer di ko jaale di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te xare ko àjjana kenn ci kooku nag euh, bokkoon na ci kum bokkoon loolu doon liggéeyandoo ak moom muy Magay Sekk ngeen xam ko muy tëggkatu Kumba Gawlo kàddu yi jaalam ak ay seede ci Aziz moom lañu koy laaj ginnaaw ban la nuyoo Magay di la ziar bàyyi la nga nuyoo ak internautes maa leen di fay bu baax di leen nuyu di gërëm sant ci seen taxawaay. ci boobu ba léegi nelawu leen lekku leen naanu leen ndax euh, ku xam ah euh, site internet yi ah réseaux sociaux yi ah, ak journalistes yi xam ne ñoo artistes yi dañu jaxasoo mm-hmm. benn famille la mm-hmm. moo tax ku ci am mettit rek ñëpp ay jug waaw donc seen taxawaay maa leen ciy gërëm bu baax mm-hmm. di wax ne Aziz moom euh, ku yabu rafet njort ci moom parce que euh, lu ne xew na fi dëj bu ne am na fi mais bu Aziz bi marqué na histoire du Sénégal waaw marqué na histoire Sénégal parce que ñëpp ko jooy waaw te yàlla moom moo xam li gën moo xamit lu muy def dogal ci jaamam waaw ñun lu bari mën nañ cee umpale waaye suñu borom moom xam na lépp donc dañ koy ñaanal rek Euh, fa mu tëdd gënal ko fi mu jóge waaw du ko ñaanal tamit di ñaanal fameem yàlla may leen xolu muñ di la ñaanal sarax bi yàgg lool lool ci seen loxo tey nag dama ñëw euh, ku xam asis xam ko ak Kumba Gawlo ku xam asis xam ko ak groupe Kumba Gawlo nga xam ne euh, fa la bokkoon moom doon na feccal ñëpp mais groupe Kumba Gawlo moom lañ mu jee àndal sax génn jël vol voyage yi ñew bo ko bagaw la mujjee andal voyage donc damay rappelé wu non voyage bobu heure da fay melni film buy répété wu quoi tellement assis da fa nek rassembleur da fa nek nit bo xamantene assis Aziz bëggul ku mer assis bëgg bëggul ku stressé ku tok sax ni dindé ki tok waxo sax euh dafa da fay da fay jaxlé donc nitu jàmm la nitu salam la donc ñun gëm bopam lañ xam ci mom liggéey ak jaamu yàlla loolu lañu xam ci moom fonk boppam fonk métier am lool lool lool lool lool lool lool bëgg Coumba Gawlo ba mu jeex tàkk tàkk tàkk bon moo tax artistes yëpp féete woo ko ñëpp ko bëgg Aziz ñëpp ko bëgg donc dañ koy ñaanal ko en tout cas ce qui me concerne sama man ak hmm. sori na lool lool lool. on parlait de tout parce que liñ doon presque chaque jour doon hein. hmm. presque chaque jour hein, ci métier bi ci et tout ça donc mu nekk nit ambitieux. et puis nit bo am inspiration. Hmm. donc ku dem na. artiste dem na. donc koy ñaanal xare ko àjjana yi gën a kawe ci barke Seydina Mohamed en tout cas li ci des xam naa ne dinañ ko yeggali ci biir ndax dañoo ñëw rek mm-hmm. jaale si ndax dafa fekk ñu tukki woon bay soog a ñëw donc kontaan nañu trop trop trop trop jërë ngeen jëf jërë ngeen. a def ci moom. waaw li ma mën a seede ci moom mooy nit ku baax la nit ku am ngor la nit ku jàpp ñàmburam la te li ma gën a neex ci moom mooy kenn xamalu ko dara lépp lu muy dund kenn kenn mënta génn asi nangam parce que man mosuma koo xamal dara boo xoolee am na benn vidéo boo xam sunu voyage bi mujj moom moo ma doon synap sax moom moo ma doon filmer filmer ba pare envoyé ma ko ne ma man lii du ma ko defal kenn parce que gars yi mooy loolu ne ma yow da ngaa baax da yaatu sa dafa rafet moo tax ma defaral la ko mu ni ma man dama mën a monte monté mu ne ma monté rek laay def mais du ma ko defal kenn mu monteel ma ko ba mu naaj si envoyé ma ko mais dañ koy ñaanal yàlla mi nga xamante ni moo yor xéewal yi yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawee ci barke Seydouna Muhammad léegi li des mooy ñu ñaanal ko rek yàlla yërëm ci barke yonent bi waaw vraiment ñu ànd ak la diva nag la diva mu baax mi nga xamante ni moom dafa am ngor fu mu àndal gar ci bakkanam mu woote ne comme que damaa tukki woon te ñëw naa groupe bi yëpp laa bëgg ñu def délégation dem ñu jaale ji Aziz Kumba Gaw la ku baax la ku mën social la ku am ngor la parce que lii mooy kóllëre kóllëre ginnaaw lay féet tey jii mënoon na ni Aziz dama doon ànd ak moom mu may feccal ma koy fay kon bu wàññeekoo damay nekk ci li ma neex waaye dafa ànd ak famem ànd ak yaayam ànd ak ay musiciens ànd ak ay fansam ñëw jaale si yaayu Aziz ak ay mbokkam vraiment li Kumba def man dama koo rafet lu li ci des nag mooy ñu ñaanal Aziz yàlla yërëm ko xare ko aljana oyofal suuf si koom ci barke Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. dégg naa léegi ne doomu ndey Aziz nga woon. waaw tey yan seede nga woon a def ci waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk si turam sa sant. waaw Aziz de doon na koo xam ne macha allah ku baax daal. li mu mën a wax si moom. boo xoolee sax ñun bu ñu daan dem voyage yu bëri moom suñu néeg lay ñëw Mahmale beneen clavier bi fa la daan toog naan ataaya. mu door nit ku baax a baax a baax a baax ku jaru ay ku maanu tamit si lu bari vraiment di ko ñaanal yàlla fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jógee xamaluma ko lenn lenn lu ñaaw mu bon te li képp ku koy wax loolu yow la concerné mais yàlla xam na ni ñi xam ne ay musiciens lañ yàgg ànd ak moom lu baax la nga wax si julli bu jotee dina jàpp dem julli ci xam nga nit bëgg a moom ñëpp la yemale. boo xoolee man ak Malick benn clavicine ñoo ko mag fop mais day ñëw suñu suñu biir day ñëw mel ni wàccee itam xam nga hmm. ku baax daal laalam ku lawet yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. si barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu taala wa sallam jërë ngeen ah, naa def waay. tey témoignage rek si aju ñu ngi leen këram fii di jaarale ci moom. waaw di wax alhamdulilah rabil alamin di wax tey jii lépp lu ci wax de wax ni ko fi lu dut ñu koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te yéexeñu te nit ku nekk tamit war ngaa fexe fa ngay liggéey nga seq rek ñoom xaar ma yàlla ba li suba su amee lépp lu la seede rek ñu xam ne loolu dëgg la ah kumba nag lu mu def rafet na mm-hmm. ndax di liggéey nit ki ngeen seeq lu rafet ba tey ji boo fa déggee xew mu neex nga dem boo fa déggee lu naqari nga dem loolu rek mooy ànd kon ànd nag bu fekkente ne ne yàlla lal na ko rek nii lay demee kon Aziz simit dem na ñëpp tal ko mu dem ñépp taxaw ko xolam moo ko gunge ku nekk nag yàlla soxla lay fay kon nag yàlla na ko rasulullahi teeru sallallahu alayhi wa njaaraam aja voilà. yan kàddu ngay jox rek ci ah waaw di ko ñaanal yàlla yan na ko yàlla xare àjjana nekk euh, frère bu baax vraiment. donc bu ñu mujjee voyager mu wax kii sax bokk chambre bi ñu doon nekk ba pare ñu nekk ay gayen ñoo nekk waa donc di ko ñaanal yàlla voilà donc Kumba wax na lépp daal gaw la wax na lépp voilà merci. parce que parce que suñu nit moo dem rek. Hmm. parce que ñun ak moom leneen la leneen la famille la woon daal. famille la woon ba pare ñu ñëw dolli ko si muy groupe tamakat yëpp nga xamante ni dañoo jël seen budget ñëw jaale ko te yàlla rek tax parce que ànd bu rafet rek moo am solo. moo tax lu ñu koy ñaanal mooy fa yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ci àjjana yu kawe la ndax ku ma lu mu def nii yombul yombul su ko neexoon mu ñëw moom kese su ko neexoon ñun tamit ñu ñëw ñun kese mais ñun ñëpp dañoo xaarante ba ba mu jot ñun ñëpp ñu ñëw. kon yéen journalistes yi yéen kontaan nañ ci yow parce que li nga def nii dafa rafet jërëjëf yàlla na ko yàlla yërëm da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew